ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Allemagne bii di Leroy Sané moom nag réewum di Allemagne dañ doon jàkkaarloo ak réewu Autriche match boobee nag mi ngi soxaloon amical waaye doomu Allemagne bi yeggali wut woon match boobee li ko waral moo di dafa am carton rouge soo moytuwul nag dinañu ko aj ñetti match yoo xam ne du ko football ak réewum di Allemagne dafa am carton ruus ba noppi dooree jamono ji nag ñoo ngi saytu mbir moomee su fekkee nag aj nañu ko ñetti match du ko football waajal euro bi match amical yiñ ca war a amal ngir waajal ko moom mii di Leroy Sané du ca mën a bokk xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle. ñu jugee ci Leroy Sané ak daan yooyee di ko yot dem ca waa Paris ñoom nag li ñu jàpp moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier seen ñaari gone yii dinañu teqalikoo ak ñoom maanaam dinañu leen jaay ñu dem ci beneen club doxal xibaar boobu la Parisien moo ko xamle ke ca njëkk nag ab attaquant la mi ngi tudd Igo Ekitike li waa Paris jàpp bu ñu ñu yeggee ci weeru janvier dinañu gis club bu ko bëgg ñu jaay ko ko mu dem foofee doxal keneen ki moo di Kurzawa moom ab latéral la gone gi latral gauche la football tut ak waa Paris li waa Paris jàpp moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier dinañu gis club bu ko bëgg ñu jaay ko ko kon nag Paris jàpp nañu ne bu ñu yeggee ci weeru janvier seen ñaari gone yii dinañu téqalikoo ak ñoom xibaar boobu la parisin moo ko xamle ñu jugee ci Ekitike ak Kurzawa waaye Paris googee duñu ko génn gum nañu leen ne dinañ leen ko toppal mi ngi soxal Marquinhos dafa demoon ci réewam di Brésil jëlee fa ab blessure blessure boobee nag waa Paris wax nañu ca lu mu gàtt-gàtt nag doomu Brésil bi dina toog fukki fan dooro dugg ci terrain football loolee officiel na kon nag ñaari match yii ci kanam Paris war koo amal du ca bokk war nañoo jàkkaarloo ak AS Monaco war nañu jàkkaarloo tamit ak Newcastle match boobee nag lig de champions la soxal waaye kat seen capitaine bii di Marquinhos du mën a bokk ca ñaari match yooyee loolee nag xibaar bu nag naqari la ci waa Paris. ñu jugee ci waa Paris waaye doomu Brésil yi duñ leen bàyyeegum dañuy jël doomu Brésil bii di Daniel Alves moom nag xam ngeen ne dafa nekk ci ay jafe-jafe ndax mi ngi ci loxo yoon dañu koy jiiñ viol ca réewu Espagne tey jii nag am na ay xabaar yu génn ci moom ndax parquet bi li ñu bëgg moo di ñu tëj ko neuf ans maanaam juróom-ñeenti at ñu tëj ko ko ci kaso bi loolu nag xibaar yu njëkk yi la délibéré bi génn gut maanaam xibaar bi mujj daanoo gut loolee la waa parquet bi bëgg moom nag dañu koy jiiñ viol viol nag jàpp naa ni sénégalais yépp xam nañu ko mooy séq ak jigéen ci lu ko neexul jamono ji nag mi ngi ci kaso bi muy Daniel Alves ñu jugee ci Alves ak i jafe-jafeem dem ca waa Manchester City ñoom nag dañoo bëgg doomu joueur si bii tudd Cavares Xelia di football ca Napoli yemuñu ci bëgg ko képp ndax kat quatre-vingt-dix minutes football nee na keroog bi ci di jàkkaarloo ak Espagne yebaloon nañu ay ndaw ngir ñu saytu doomu ci bi xool ni mu mënee jamono ji nag ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax loolee la quatre-vingt-dix minutes football xamle. ñu jugee ci Kvaratskhelia ak waa Manchester City ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Espagne bi tudd David Rea moom nag ma ngay ci ca Arsenal Arsenal nag da ko abon waa Brentford waaye ba mu ñëwee foofee ak tey ji nag mi ngi doxal li koy firndeel moo di Ramsdale la teg ci baa bi loolee tax na nag option d'achat bi nekkoon ci diggante Brentford ak Arsenal bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano dinañu ko lever maanaam dinañu jox xaalis boobee waa Brentford ngir doomu Espagne bii di David Rea ñu moom ko ñoom waa Arsenal xibaar boobu Fabrizio Romano moo ko xamle. ñu jugee ci David Rea ak waa Arsenal ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Pologne bi tudd Kiwior gone gi nag ab défenseur la ma nga ca Arsenal di doxal bu ñu sukkandikoo ci fut mercato nag club yu bëri nekk ca série A ba li ñu bëgg moo di dellowaat ko ca série A boobee nga xam ne doomu Pologne bi miin na ko lool ndax ma nga woon ca Spezia foofee la ko Arsenal jëlee waaye ba mu demee ca Arsenal ak tey jii nag doxalagut loolee tax na nag club yu bëri nekk ca itali dañu ko bëgg club yooyee mën nañu caa lim AC Milan Napoli AS Roma waaye jamono ji nag club bi ko gën a bëgg ci Italie moo di AC Milan bu Pioli ñoom dañu ko bëgg lool li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Arsenal waaye jamono ji moom Arsenal noppi wu ñu ngir jaay ko ndax jàpp nañu ne bis dina ñëw gone gi yeewu doxal ca Premier League ba xibaar boobu fut merkato moo ko le ñu jugee ci ki yor ak club itali Italie yooyee di ko xëccoo dem ca waa Chelsea xibaar bii nag neex na ndax doomu France bi tudd Wesley Fofana mi blessé woon bu yàgg lool jamono ji nag mi ngi yëg tan bu baax entraînement yi waaye kat dañu koy ber maanaam individuel moom kese mooy entraîner kon nañu ko ñaanal balaa yàgg mu bokk ci entraînement collectif yi mat yi Chelsea am ci sunu kanam mu bokk ca doxal muy doomu France bii di Wesley Fofana. ñu jugee ci waa Chelsea ak seen xibaar bu neex dem ca Liga e-sport ba tey jii nag dañu doon joxe ay raaya ngir njukkal saison bii ñu génn gone ya fa gën a doxal. góol bi gën a dox ci saison bii ñu génn muy saison deux mille vingt deux deux mille vingt trois moo di doomu Allemagne bii di Ter Stegen di góolu ca Barcelone moom la ñu tànn